الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي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 dañuy faral di saytu suñu bërëbu liggéeyukaay ci lépp lu war a mën a indi lakk ngir artu bépp jeya waaye suñuy mbëbët yamul foofu ngir mën leen a gunge fépp te it ngeen yelloo li gën lobbu maam jaaru du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori alhamdulillahi alladi agnaani wa aaz alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi ñi ngi sant buur yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yenent bi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ñaan boo xam ne dafay ànd nuyo nuyoo te mooy nuyoo lislaam yal nañ yàlla defal jàmm muur ñu ak yërmandem waaye barkelal ñu suñuy mboole mbir yi ñu dund ci àddina bi mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu l'islam rek moo am lii ñuy delluwaat ak yéen ci suñu émission shumuliyatul islam la globalité de l'islam ci Ali Imran TV di sàkkuwaat ci mbokk yi ñi gën a abonné ci chaîne bi partage vidéo yi émission yi bu baax a baax bu mënee vidéo yi émission yi du émission bi kese waaye mboole émission yi nga xam ñi ngi daw ci chaîne bi ci Ali Imran TV ñu koy loolu mooy partager yiw mooy jàppalante ci lu baax wa taawanu ala albirri wattaqwa bi nga déglo émission bi mu am solo nga kontaan si lool partagé ko waaw yéeneel lu mel noonu sa mbokk jullit yeneen bi loolu la wax kon tey ñuy ñëw ak yéen encore ci li nga xam ne moom mooy ba tey naafile yi yi nga xam ne moom la def ci weeru koor suñu borom subhanahu wa taala ku bëgg ay jaamam lañ ku bëgg ay jaamam la moom borom subhanahu wa taala looloo tax lépp lañu jox maanaam lu ñu bëgg lu ñu soxla lu ne jox nañu ko loolu nag dafa laaj dégg-dégg nit dina toog fa fële mu ne waa man maa ngi bëgg xaalis aw ma xaalis ba léegi maa ngi bëgg a yaram aw ma wér yaram ba léegi maa ngi bëgg oto amaguma oto ba léegi maa ngi bëgg sama këru bopp aw ma ko ba léegi kon kay am na lu des <laughs> suñu ne wa aataakum min ku ma saaltum lañ ciy déggee mooy lu mënta ñàkk sa dund jox na la ko te lum la xañ rek xikma la am na lu tax mu xañ la ko lu mu jox kee lu ne rek am na lu tax mu jox ko ko waaw am na loo xam ne nag moom da koo def tëraliñ ci suñu diggante mu jox kee milliard jox kee million xañ kële teg kii ay jafe-jafe léegi nag mu ne léegi nañu jàppalante ñu ànd ñun ñëpp milliards yi joxuma la ko ngir nga téye ko dama la ko jox ngir nga partager ko kon moo tax suñu boroom jox nañu lépp desaluñu dara kon ci wàll boobu ba tey yenent bi sallallahu alayhi wasallam dégg bi mu dégg diine l'islam bi comprendre ko borom bi subhanahu wa mu def ko mu nekk exemplaire mu nekk qudwa uswa boo xam ni ñun ñëpp ci moom la ñuy roy ci moom la ñuy niit moom sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli alayhi wa barik alayhi jàng alquranul karim importance bi mu am yiw bi ci nekk bëgg bëgg ñépp bénéficier wu ci ci xeetam moom sallallahu alayhi wa sallam nga xam da daan wax sax mu ne kullun yadxulul jannata illa man aba seet mu ne ñëppay dugg aljanna du dul ku bañ donc yéen a ngi dégg lii yeneen bi moo wax lii de mu ne ñëpp ñëppay dugg aljanna maanaam ku ne di nga dugg aljanna ku duggul rek yow yaa bañ loolu tam dina jaaxal ku ne moo tax saxaaba yi bi yeneen bi waxee loolu dañ koo laaj question laaj ko ne ko mais qiila man yabaa yaa rasulallah waa kan mooy bañ a dugg aljanna ak lañu wax ci émission bi wees ci aljanna yépp waaw tey jii ne am na bërëb yoo xam boo si demee ci àddina da ngay ne nii moom paradis sur terre la waaw léegi imagine ñu ne ñu ne euh, man benn sénégalais boo xam ne maa ngi dëkk ci benn gox boo xam ne taxu ko jag na du ma cité benn bërëb waaw pour bañ a tooñ moo tax <laughs> nga dëkk foo xam ne quartier bi demeewul noonu euh, conditions yi demeewul noonu foos yee ngi ball poussière bi suuf si jaxasoo bi désorde bi coow li bruit bi waaw léegi nag ñu ne bërëb bi nga xam ne tey moo gën a luxe si àddina bi tey ñee la kaay nga dëkk foofu ñu jox la ko gratuitement amul kenn koo xam ne ci àddina di nga bañ lool loolu moom yaakaaruma ko waaw léegi nag aljanna comme niñ ko waxee émission bi wees la fa nekk nit mënu koo xalaat xel mënu koo daj nit mësu koo gis nopp mosu koo dégg léegi nag yenent bi ne ñëpp fay dugg lu dul ku bañ saxaaba yi ñoom ñoo yee ñu laaj ko ne ku yow yenent bi kan mooy bañ a dugg aljana mu ne man ataani yenent bi di tontu ba mu waxee wax ji ba pare ne ñëpp fay dugg aljanna lu dul ku bañ saxaaba yi ne ko waa ane kan mooy bañ dugg aljanna ak la fa ne yëpp mu ne man képp koo xam ne ataani yenent bi ne képp koo xam ne topp na ma man yeneen saa sallam daxal aljanna dugg na aljana waxul sax dina duggi aljanna mais dafa ne dugg na ba pare ndax topp bi nga topp yenent bi loola waral nga dugg aljanna allahu akbar wa man asaani ku ma mooy nag faqad aba moo bañ moo lànk xoola bi waxul ku ma mooy mooy dugg safara mais dafa ku ma mooy ki bañ a topp moom moo lànk faqad aba moo bari yërmande sallallahu alayhi wa sallam kon loolu li tax ñi indi ko mooy xiyaamul layl yi nga xam ne wala tarawih julli yi nga xam ne moom la ñuy julli ci weeru koor am na koo xam ne ci yeneen maanaam ci xeetu yeneen salaa sallam moom alquran an demeewul noonu pour mu am benn kaamil ci weeru koor bi yombut pour mu jàngal boppam alquran yombut amaana mënul liir wala xamul na la ñuy liiree wala lecture am demeewul noonu wala am na ay ngànt yoo xam ne si journée bi du ko permettre mu mën a jàng am kaamil ci weeru koor waaye mu yombalal ñu naafila yi nga xam ne moom la ñuy naafila ñu mën cee am ay kaamil taraawix yi nga xam ne suñ nee salaatu taraawix julli taraawix mooy naafila yi ngay def gannaaw julli gee waaw nga xam ne jàkk yëpp a koy def ci biir Sénégal ñëpp a koy def léegi nag am na jàkk yoo xam ne ñoom duñu jàng kaamil bi yëpp mais ñi koy jàng bari na te loolu sax mooy li gën pour maanaam occasion la pour nga mën a am maanaam kaamil ci weeru koor bi kon tarawih yooyu nga xam ne boo noppee ju liggéey naafilu yooyu ñuy def yeneen bi sallallahu euh, occasion la boo xam bu mu ubbil njaboot bi nga xam ne tey jii ni yow boo ñëwee kàbbar ànd ak imaam weeru koor bi yëpp ci naafile yi di nga am minimum benn kaamil boo xam ne jullee nga ko waaye déglu nga alquranul karim aussi allahu akbar kon loolu rek aljanna bu taxaw a ngi noonu nga bokk ci man qaama ramadaana képp koo xam ne taxawee na ramadaan weeru koor qiyaaman ci ay naafila waxtisaaban yaakaar ci payoor ci borom subhanahu wa taala gufira lahu ma taqaddama min danbihi jéggal nañ ko mboolem lu wees ci ay baakaaram kon beneen opportunité ngi nii kon tey lii lañ leen indiloon ci suñu émission shumuliyatul islaam nañu profité bu baax ñi bañ a sànq suñu waxtu nañu bañ a naan dañuy wër bërëbu jullikaay yoo xam ni maanaa jullit dafay gaaw dafay gaaw wala julli dafay yomb lool waaw ku ko def am nga yiw waaye itam jullit day wër li gën day wër qualité waaw damay sàkku sax mboolem jàkk yi nga xam ne dañ fay def maanaam naafila gannaaw gee bu ñu sañoon ñu ngi sàkku imaam yi bu ñu mënee changé bu dee système bu njëkk bi moo fi nekkoon nga xam ne dañuy jàng ay ixlaas yi bari ci ayer ci benn rakka baax na tey boo kàbbaroon ne bismillah rahmaan jàngal fatiha ba pare nga ne taaha rek nga rukkoo sax rakkaa ji baax na julli ji baax na yàquwul waaw boo kàbbaree ba pare jàng fatiha jul tari junni ixlaas ci benn rakka baax na dara newu ci baax na waaye tamit ñu sàkku ci ñoom tamit pour mën a am occasion réviser kaamil bi yëpp comme ni ko yeneen saa sallam daan defee ak jibril nga xam ne bu weeru koor daan ñëw daan na réviser ak yeneen saa sallam alquranul karim kaamil bi yëpp ñaari yoon bu fekkente ne bii da nga bëgg a am occasion boobu roy ci yeneen sallallahu alayhi sa jàkk yow imaam bi fexeel nga def ci tarawih boo xamante ni kaamil bi ngay tàmbale premier jour euh, naafilay ba keroog weeru koor di jeex nga ut ay xale yoo xam ne tey foo dem kër goo dem foo dem kër goo dem ci Sénégal léegi daanaka moo waxee kër mooy këru diine yépp li fa ne ci ñu mokkal alquran daanaka kenn xamul nu mu toll waaw tey moom bu njëkk da daan raar mais léegi raaratul loolu lu yombal kon dajaleel ay xale ci jàkk ji ñi jiite boo jo en tant que imam boo jiitee gee ba pare nga bàyyi xale yooyu ñu ñu ñu ñu jiite mbooloo mi ñu naafela kaamil ba bu fukki fan yi mujj ñëwee tamit aussi ubbil jàkk ji même boo amulee jot yow imam wala munoo ko taxawee nga ut ñoo xam ne mun nañ koo taxawee jàkk yi bari ñuy xam fii nii si Ndakaaru noonu la ñuy def léegi imaam yi léegi dañuy même buñ ñëwul sax dañuy ubbi jàkk yi bàyyi xale yi ñu organiser ko ñu am fa li nga xam ne moom mooy beneen kaamil ci fukki fan yi mujj yi kon loolu la loolu benn sàkkute la boo xam ne moo ko doon ñaan imaam yi suñu mbokk imaam yi ñu def ko buñ ko defee yiw boobu kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll kon yàlla nañu yàlla defal tawfiq yàlla ñu yàlla may dégg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa الحمد لله الذي أغناني وأعزني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

الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان